ànd boobee ñu ngi ñaan mu jëm kanam ci information wértu wóor coup tonnerre fu li nga xam ne mooy Madrid euh, kii la di Antonio Rudiger du bokk ci match bi ci kanam euh, choc bi lu ko waral maanaam mooy gone espagnol ci wàllu doctor euh, ginnaaw bu ñu effectué tey jii ci suba gi cuuy moom Antonio Rudiger benn diagnostic boo xam ne def nañ ko ci blessure musculaire bi nga xam ne am na ko loole mi ngi nekk ci vaste latéral bi nga xam ne daanaka moo nekk cuisse gauche bi maanaam ci tànkub càmmoñ bi loolee coytu ga yaatu na bu baax a baax baax gannaaw buñ leen nuyoo sant leen sàkku ci yéen abonnement yow mi ko defagul nga dab nu ci information yi coppati ko ndànk yow mi ko def ba pare yow moomee aimé suñu vidéo maximum de partage blessé boobee nag daanaka du baax ci Real ndax fi ñu bari ñu ko doon xaar mu football ci match tey jii daanaka match boobee nga xam ne sax bokkoon na ci liste bi nga xam ne ah, kii di Carlo Ancelotti ak doomam tippoon nañ ko pour match tay ji loole nag nekk coup de ca Madrid moom lañ fay waxtaane waaye du tee gone yi danañ doxal ah, fële ca Espagne tamit daanaka wala boog ca Barcelone tey ji entraînement bi gone yi def gis nañ ni kii di Lewandowski ak ñi mu àndal gis nañ ñu ah, am taxawaay bu am am solo maanaam kanam yu belli leer naññi moom lañ gis gone yi tey ji ci gi nga ne def nañ ko ñoom waa Barcelone gu mujj am choc bi nga xam ne ñoom it danañu am boo xam xam ni ah, danañ ko yebbi loole tamit nekk lu am solo Lamine Yamal ngeen gis ko léegi ci li nga xam ni mooy mbégte bi ma gis waa Catalan di ko wane mbégte bi nag ci entraînement day wane cofeel ak mbégte goo xam ni am nañ ko te waaye tamit day wane xadar ak fulla ak fayda ji nga xam ni ak confiance bu mët sëkk bu équipe bu Barcelone bi am tembe fi mu toll nii xalaatanutu ay caaxaan tey caaxaanu àndunoo kuy caaxaan lanuy doxal ñoom Catalan yi fi mu toll nii ah, bu doon maanam daanaka ñam bi la nekk na sooyaa joo xam ni routine ko ba mu ñor kon li ci des daanaka mooy yàq yàq bi nag mooy match yi ñu dëgmal ñu gën a mën a góorgóorlu accélérer cadence fi taxawaay bi ñu am boobaak léegi taxawaay boobe am na solo li ci des mooy ñu dàbbar ñi bu baax a baax ñu gërëmaat leen